xamee dafa dem sama dëkkam laay wax daara Jolof ñu toog ñu xaar ñu ba 6 heures du matin la ñu dem si midi fii kër bii boo xoolee thermomètre mu ngi am affiché 45 à 46 degré. wallaahi dëgg la de dëgg la. waaw waaw. yaay mu ko lebal ñu fay la ko fii ci Linguère wala ko ci fii fii xam nañ ko ci ñoo ne wax nga xamante ne bu ñu laaj nguur waxoon nañu ko 12 ans après mënoon nañu ñëw wax seen wax jàppal ñu doon toog comme bi ngeen di fekkaatoon fii day mel ne yéen a ñuy waxal tey. wax nañ ko fi damay li ngeen amul liggéey dimbale ñu si liggéey bi ay dawali wadin dawali sareet a bindee liggéey amul fi

dégloo la ngir yàlla dégloo leen xam li muy wax ah. producteurs yooyu dañ yaakaaroon ne bi ñuy dugg defoon nañoo def liggéey bu ñu defee daara bi ñu fa def ñëw dañ yaakaaroon dañuy xëy na tey loolu moo taxoon lu tax combat bi ñuy génne waaye liggéey moo ko woon bañ a def parce que dafa am solo ci ñun. wallaahi ngoon ñi am 66 ak 70 pour cent bi ñu yaakaar fii lay jógee. Kan je nog? balaa ngoon di jot rek midi midi mu jeex midi rek midi midi mu jeex. jërëjëf waay jamaay jërëjëf yàlla Yeah. Carlo mia. 前がそうだこういえば。ഞങ്ങളുടെ കാരണം സാങ്കലോ